قليل يا عجا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيامن خليل يا عجا وانزلا بالتواون أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم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 وعلى آله والصحابة والطابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فتبارك الله جنابنيو مسلوك الشيطان أكبكا نعني سنت بري الله سبحانه وتعالى لجلتين أنتم بتدبي مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبارك وتبارك الله di ñaan sunu borom mu jullil ñu ci yenent bi alayhi salatu wasalaam yi nga xam ne ma tabarakallahu mooy borom weer wi ci weer wi nga xam ne moo tombeek weeru juddoom wo moom alayhi salatu wasalaam ginnaaw loolu ñu ngi leen di nuyu ci yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy topp ci seen site aynu madi tv fa tabarakallahu ñu ngi jokkalante ak yéen baatu jàmmi yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla buur yàlla boole nu ko defal ci daraja yéenant bi alayhi salaatu wasalaam tabaarakallahu di leen baalu xaq ci weer wi di leen baal di ñaan buur yàlla ci mbaaxam ci yërmandeem ci ñeewantoom gi mu am ci jaamami yàlla na yàlla boole ñu defal loolu ñu dellusiwaat ak yéen ci seen émission bi ñu baaxoo di defee yéen muy seen jotaayu al burdu an nabi Euh, di jéemantu ci fàttalante ak yéen tabaarakallaahu ci solos burdu waaye jéemantu ci jéem a tekki waxi nitu yàlla ci koo xam ne tabaarakallaahu ferul ijji kon su ko defee lépp luñ ci dégg rek ñu xam ne ay jéemantu lay doon tey nag ñu ngi ñëw ak yéen ci suñ jotaayu juróom-ñetteel bi nga xam ne dafay ñëw di jàngale jihaad ji nga xam ne moom la alayhi salaatu wasalaam doon jihaad mu ngi naan raaxat xuluubal ida am baa u bi'sati kanab atin ajfalat xuflam min alxanami maa zaala yalxaahum fi kulli muctarakin xata xakaw bilxana laxman ala wadami nee na raaxat tiit na xuluubal ida xolu noon yi ambaa u bi'satihi xibaaru yónnik yonent bi alayhi salaatu wasalaam kanab atin mu deme na ko mbooloom yëmbu aj falat boo xam ne fël na xuflan ci sàggan ala minal xanami tukkee ci ay gàtt nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi nga xam ne noon yi jot nañu xibaaru ne yonent bi yàlla yónni na ko dañoo tiit ñu daal di jàq ba mel ne mbooleem ak jur muy ay gàtt buñ ko waxee mooy yóbbaale xar ak béy yoo xam ne dañ leen sàmm sàmm ba bàyyi leen ci àll bi ñuy for di dem moom mu tëdd ci keru garab ba gaynde wala bukki juux ci seen biir xar yi ak bëy ya nañuy tiitee ba ne fërëx départ daw mu door a jóg naan lu dàq sama xar yi nee na noon yi ñoom noonu lañu meloon ci tiitaange maanaam tiit gi xar yi nga xam ni bukki dafa dugg ci seen biir mbaa till wala gaynde mbaa segg nañuy tiitee di daw seen xelu bakkan ngir ku ne rawale boppam noon yi noonu la ñu doon tiitee bi leen alayhi salaatu wasalaam doon song ànd ak saxaabatul kiraam waaw moom lay wax moo tax mu ne ma zaala ma zaala yalqaahum fi kulli mutarakin xataa xakaw bil laxman ala wadami ma zaala mustadañ wala dañu toon yalqaawum di dajeeg ñoom fii kulli motarakin ci bépp ëttu xare xataa kaw ba nurale nañu ko yaramu noon ya laxman yàpp woo xam ne ala wadda mi dañ koo teg ci kaw taaba bu sëri maanaam yi bu jël yàpp nag wala yàpp xar teg ko ci taabalam di ko dóor bil xanaa ci guntux ya wala xeej ya noona la yaramu noon yi mel bi maanaa saaba yi xare gin daan xare yéeféer yi di jël jaas yi ak xeej ya di ko dóor ci seen yaram ya muy dagg jaas yi yooyu ak xeej ya na mu doon def yaramu noon yi dafa mel ne benn buuse bu dem euh, betuwaar fees fa aw nagam daldi indi nag teg ko ci taabal ba mu jaayee ku ñëw ne ko jaay ma na muy dóor di dagg jaasi saxaaba yi noonu lañ doon def yaramu yéeféer yi moo tax ñoom bi affaire bi taree ba tar waddu waddul firaara fa kaaduu yaxbituuna bihi asla asaalat maal iqbaani wa raxami waddoo doon nañu ngéeju alfiraara daw ne wëqët daw ngir lan rawale seen bakkani ngir tiit jàpp ne ku dawut boom tey moom nga dem barzaq moo tax fa xawoon na yaxbituuna doon pellamtu bii ci moom asla ay ay ay cëmbërga yooyu sem na maal iqbaani ànd ak ay baaxoñ eh, mu jam uqaab waraxami ak tan bi maanaa ñoom eh, ñi ñu doon eh, faat ci ñoom yéeféer yi am nga bu dee ab jullit bu faatoo dañ koy jël suul ko comme juróom-ñaar fukk ñu faatu woon ca Badar nga xam ne boo demee màkk ñu wan la fa ñu nekk ca suuf jabalu Uhud eh, fa ñu nekk ñu wan la ko waaye bu dee ab yéeféer la ñoom ku ñu faat ci ñoom ñoom dañu daw bala fa suñ dawee bala fa nag ñuy lekk seen yaram ya mooy taniya ak baxoñ ñoy ñëw wër médd diko lek wa lekk yéfer yi diko lek lool lay wax motax taruk qareba ak taruk xeex ba daana tax tam dii layaali wala yadruuna iddata ma lam takun min layali ashuril xurumi tam dii daana passé daana romb daana wéy al layali guddiya ak wer yak bisya ñom wala yadruuna duñu xam iddata limu fani maanaam taruk xare ba ak taru jàmbaaru saxaaba yi ni ñu daan lottalee yéeféer yi dana tax ñoom buñ daan nekk ci weer yi di xeex boo la jegoon ak benn yéeféer nga ne ko bisu tay la lan du la mën a wax tay la lan boo ko waxoon mois bi fu mu toll du la mën a wax tay la dix mbala tay la onze wala tay la douze ilaa macha allah maalam takkun fii ak nekkul min layaali ci weer al ashuri min layaali al ashuri ci guddig weer al xurumiyatu yu ñu ormal بمعنى ذو القعد ذو الحجة أك محرم أك تبارك الله رجب الفرد فيك نكل نينت وير يويو وقال نمام القرآن دولو أربعة منها حرم نيوم دون منا قاب ميتا إلا لندق وير يويو نيوم داون تقيخ واو موتاق من تمدي دان وي دان الرمب الليالي قدي ولا يضرون دون قام عدتها لمفاني ما لم تكن فيك نيكول من ليالي تي تقدق وير الحرم يدو ينو أرمال كأنما الدين ضيف حل صاحتهم بكل قرم إلى لحم العدا خرمي كأنما الدين دفا دمينك الدين جي ضيف قال حل بواتنا صاحتهم سين ات تبارك الله آه قرمي بأجيب بكل قرم تبيب الصنغ خرمي بأجيبهم إلى لحم العدا جمتي يابو نواني نانا عليه الصلاة والسلام صابت الكرام يمدون أندك doon xeex ak ñoom e, tabaarakallaahu doon xeex ak yéeféer yi yéeféer yi daal dafa mel ne diine gan la gu wàcc ci seen ëtt waaw gan la gu wàcc ci seen ëtt ngir lan taruk te sa njàmbaaru saxaaba yi nga xam ne ñoo doon xeex ak di xotti ak di dagg yaramu noon yi ba ñoom ñu jàppee woon diine ji daal lu mel ne mu mel ne gan ci ñoom moom la xam ne e, ya juru doon na diri baaru xamis la lu juróom muy muqaddamat ak yumnat ak may maysaratu euh, nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa bu daan dem xare day am mbooloo mu nekk ci kanam am mbooloo mu nekk ci côté ndeyjoor am mbooloo mu nekk ci côté càmmooñ am ñu nekk ci ginnaawam moom mu nekk ci digg bi waaw moom lay wax baxra xamisin euh, géejug juróomeel bi saabixatin mu nekk ci kaw giléem ya gaawaayu giléem ya nag ak seen tarug dox ba dafay mel ne gaal gu nekk ci kawam ndox di feey mom ndax ndax fas wala gilem mom lañ daan war bu ñuy xeex te ku ne xam ne fas baaxoowul féey baaxoo lum baaxoo mooy daw féey li ko baaxoo mooy gaal wala bato yooyu nekk ci ci géej wala ay kanoot ak yu ko nuroon yar mii di sànni bi maw jin ci ay duus minal ab taali ci jàmbaari multatimi mi aji tampon muy sallallahu alayhi wa sallam tabaarakallaahu Euh, fan nekk giñ daan nekk ci kaw fas ya gaawaayu fas ya ak jàmbaar ya nekkoon ci kaw fas ya ñoom lay wax ne boo leen daan xool dañuy mel ne rek tabaarakallaahu ay kii yoo xam ne dafay dafay féey moom lay wax nag mu ne min di bin tukkee ci bépp pénc tabaarakallaahu lillaahi ñer yàlla si muxtasibin ñu aji doyloo yëstu doon na song bi mustasilim muy aji sàkko faagaagal lil kufri ñeel yéeféer mustalim muy aji alak ko nee na saaba yooyu nga xam ne ñoo doon ngàbbu jaas yi di xeex ak di xare saxaaba ya tabaarakallaahu ah, seen jaas yi ah, ya ñu yoroon doon ko dagg yaramu noon yi noon boo xam ne jege nañ la rek jaasi ja bu la dalee dangay mel ne rek tabaarakallaahu ku ñu alak waaw mooy day dagg waaw ndax loolu leen yàlla séddee woon ñu amoon fit lan waaye ñu jàmbaarale woon lan daawuñu daw ci xare moom lay wax xataa xadat ba mujj na millatul islaam yoonu diina lislaam wëyya moom lislaam bihim ci ñoom min baadi xurbatiya ginnaaw bi mu tumurankee nga xam ne tabaarakallaahu boo ci duggee dañ la daan fitnaal ak di la teg ay coono ñii ñu jàppoon di leen yeew ñii ju leen teg ci naaj wi ñii ñu di leen booleeg ay xale ñuy sànni ay xeer loole daal mujj na mawsulatu rahimi muy ku ñu jokkale ju mbokk ginnaaw ba nga xam ne sayyidnaa Umar ibnul Xattaab tuub na dugg ci diine ak ku mel ne hamsatu ak jambar yu mel ñom fa tabarakallahu lislaam bi dal mujjuna nak nag tumuranke gum tumuranke won nga xam sañu ñoo julli ci mbolo ci fess sañu ñu wona nodd ci fess lola dañ na wa mom la gor gi doon wax wa kana da'watu sirran salaasa salaasa sinniina inda daari l arqami wa tudu al an daara al wa sahbu ala wajalin lillahi rabbihim mangok makfuulatan muy lu ñu yar abadan faw minum tukkee ci ñoom bi xayri abin ci gën ji baay te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ndax baay yëpp moo ci gën wa xayri baalin ak gën ji jëkkër falam taytam ba lislaam tabaarakallaahu jirimut walam taymi ta cagatuwut mooy doonul jigéen ju amul jëkkër di jaay boppam waaye lislaam it doonul koo xam ne amul baay dafa am baay ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hum ñoom aljibaalu ñooy montagne Eh, fasal laajal anhum ci ñoom musaadim aji songo ak ñoom wala aji lewaatoog ñoom laajal maza raa ana ci lan la gis minhum ci njàmbaaru saaba yi fii kulli mustadimin tukkee ci bépp ëttu xare maanaam xare yam saaba yi daan dajeeg noon yi boo bëggee xam njàmbaaru saxaaba yi demel nga laaj yéeféer yi lu ñu gis waaw lañ leen gis ngeen laaj leen lan la ñu daj ci saaba yi doon dajeeg ñoom ay nit leen ñoo xam ne woon du ñu reculer waaw ndax ku ci daan dem xare ci ñoom dee ci xare dala daan jaral ba tax nga naafile ñaari rakka ñaan yàlla boo demee pour boo dellu waaw ngir bëgg rek am garaatu garaatu martin shahid ci xare mu ne boo bëggee xam daal njàmbaaru saaba yi wasal xunaynan wasal badran wasal uxudan fusula xatfin lahum adha min alwaxami wasal laajal xunaynan xaswatu xunayn wasal laajal badran xaswatu badr wa sallaajal uxudan qaswatu uxud at atfin ay xeetu ndeewin lahum ñeel leen ñoom nooni addaa yoo xam ne moo gën a mën a jommale minal waxami ci mbas xam nga mbas bu ñëwee ni muy fàttee nit ñi nga gis koo xam ne mën na koo yor a du xam jékki-jékki dox ne këlëb kii tëdd du yeewu kii ndengam façon yooyu muy fàttee nit ñi ñoom saxaaba yi nañu doon fàttee yéeféer yi moo gën a garaaw feebaru pest bu di wàcc cim réew di faagaagal euh, doomu aadama yi waaw lay wax nag المصدر البيد حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم المصدر لاجي غونغيك البيد لاجي ويخ حمرا تي قنك بعدما وردت غيناو باغا خامينا رتنا من العدا تكي تي يرم نوني كل مسود لب لو نيولالون من اللمم تكي تي اي نجاج bi maanaa sahaaba yi buñ daan jël jaas yi di ko dóor ci yaramu noon yi bu jaas ji dalee suy génn day taq ak deret waaye ku ne xam ne jaasi fuñ ko cor bu ñawee te borom tulut faw mu dagg comme yaramu noon yi nag su jaasi daan dal ci seen kaw jaasi ja suñ ko ñawaloon ba mu wex tàll ba nga xam ne boo boo ko xooloon sax jël ñaari jaasi yi feronte leen ñoom ñaar day mel ne lu génne ay ferñeent jaasi jooja euh, nga xam dafa wex tàll ngir ñawal giñ ko ñawal euh, tabaarakallaahu bu duggee ci yaramu noon yi buy génn day mujj taq derat ngir fami dal buy dóor muy dagg waaw moo tax mu ne wal kaatibiina bi sumril xatti maa tarakat aqlaamuhum xarfa jismin gayra munajimi wal kaatibiina way bind bi sumril xatti ci guntuxu rëdd ya maa tarakat ba yiwut aqlaamuhum seen fett ya mu jël ko di ko nurale xalima fett yaag jaasi ya bayiwun xarfa jismin arafu yaram gayra munajimi boo xam ne nekkul di lu ñu tomb nee na saaba yi seen jàmbaar ga ak seen ñaw ko jaasi yaag xeej ya bu daan dal ci yaramu noon yi da ngay gis mu def fa ay tërgët muy ay tare ay rëdd-rëdd yoo xam ne soo ko xoolee da nga xam ne lii jaasee fi jaar waaw wala lii xeej lan fi jam nee na nag amul toon benn yaramu noon buñ defutoon cicatrice mooy moom lay wax xëyra mun ajum bu dul bu ñu tomb te tomb gi lim ci numb mooy ay cor-coru jaasi saaki silaahi lahum siima tumayizuhum wal wardu yamtaasu bi siima min min assalami shaaki silaayi way ñaw ji ngàndaay lu um ñeel na len sima ay mandarga yo xamne ne tuma yisuhum def na len xamé wal wardu gëttuk wardu yam tazu def na ko xamé bi sima ci gantax goñ wax sima mina salamatu ke ci salam ndax ay gantax la yo xamne lo sojorun sojorun lo sawk ay garab la yo xam dañu am ay dik. neena ñom ñaar euh eh, eh, duñu doon Bima bi makna njambarte ak fit ak deugur fit gi sahaba yi yoron boo koy comparé noon yi ñoom ñaar duñu doon benn ndax ñee buñ leen jekkoo dañu daw te buñ dawee ku faatu ci ñoom falañ lay ba ñee nag lu mën a xew duñ daw dee ndax yenent bi daf leen a waxoon bokk na ci bàkkaar yi gën a mag mooy saxaaba bu jàkkaarlook dee di daw ci xare waaw kooku kooku tabaarakallaahu boo demee ca suuratu tawbati dañ ca gis histoire ba ca euh, xewoon muy wa ala salaasat ladina xullifu xata ida daqat alihum lard bi ma raxubat wa daqat alihum anfusuhum nga topp histoire booba da nga xam la ca xewoon ba fi yenent bi mujj ak ñoom ba ñuy tuub ak coono bañ ca daj tuudi dana gindi ilayka jëm ci yow riyaaxu nasr ngelaw ak ndimbal nasruhum seenu wesaaro wala seenu xet fa tax ba da nga jort azara fuloor fi lakk ci kàmboodi ku la kami mu nekk lépp lu aju nëbbu nee na yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla dana ko defal ngelawug ndimbal goo xamante ne tabaarakallaahu euh, ngelawu ndimbal loola mooy doon mujj doon sauvetage ci tabaarakallaahu xare yi nga xam ne dafa taroon lu mel ne xaswatu uut wala xaswatu badar wala xaswatu ahzaab nga xam ne ngelaw la moo mujj ñëw te keroog nga xam ne tabaarakallaahu mushrikiina yi euh, ñoom daal dañoo xawoon a mel ne lu xaw a jekku lu xaw a jekku jullit ñi waaye wala tamit dañoo yaakaaroon ne ñooy gañe ba am ci naafiq yi sax muy wala ma wala ma àll euh, keroog bi nga xam ne gis nañu euh, kuréel ga ñoom ñu daal di wax ne ma wax dana la wa rasulu illa xurura te fekk nag ne la leen yàlla waxoon dañoo yàkkamti waaye ndimbalal yàlla laa ngi ñëw kon moom lay wax mu ne yonent bi sallallahu alayhi wax na yéen na nu surtout bi ra bi masuratu shahr eh, kon bokkoon na ci ndimbalam ngelaw li fa tabaarakallaahu moom la yàq nag noom dafa demee ne ko ñoom fii zuhuril xayli ci naa ci kaw naaru góor yi nabtu ban dañoo mel ne gàncax gu sax ci kaw tund mooy saaba nañ doon toogee ci kaw fas yi ak kaw giléem yi boo leen xool dangay mel ne kuy dox ci montagne seen benn ñax bu sax ca kaw tund ma min shiddatil xasmi tukkee ci taruk takk waaye laa min shiddatil xusumi du caagane taruk eh, dogu tarat naaw na xulubal ida xolu nooni min basim ngir njambaruk sahaba yi faraqan ci tekkaliko ñu daldi di daw wey motax fa deful tekkale baynal bu mi bëx tef moy bay wu ndaw wal buhami ak kuy ba mëno xamé kan moy jambar ci ñom ak kan moy tapet ñom ñëpp dañu andando ni fërëq rek départ daw ngir lan taruk tabarakallah jambaru sahabai yi ak nañ leen doon taakaleeg di leen attaqué ci jaas yàq xeej yàq fett ya wa man képp koo xam ne takku nekk na nusratu ak ndimbalam bi rasulillahi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam intal qawo ndeem dajee naag al usdu gaynde taji mi dana wedam fi yaa ci gott ba nee na koo xam ne dimbalikoona ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam su fekkoon dafa dox ba dugg ci xunt woo xam ne dafa fees dell ak i gaynde ñoom gaynde ya ñooy mujj di ko daw waaye moom du leen daw woolan tara doo gis min waliyin bépp aji méngo xayra muntasir min koo xam muntasirin kay koo xam ne nekkul di ko aji dimbali ko bii ci yenant bi wala min addu win du caaganeen noon xayra mun xas mi boo nekkul di ñu toroxal li mu bëgg a wax mooy képp ko jàpp ci lislaam jël yenant bi sallallahu alayhi wa sallam def ko mu doon dimbalam kooku yàlla dana ko dimbale mu mu jaam ndam waaye ku weddi diina lislaam weddi yenant bi kookee lu mën a xew noonu lislaam lay doon te noonu lislaam ci torox rek lay mujj waaye du am ndam lislaam moom day continuer di yëkkatiku doy na ci misaal mboolem ñu fi masoon a jaar doon xeex nitu lislaam di jàpp ñii di rey di jàpp ñii di taal ñëpp dem nañu te lislaam a ngi fi nekk ba tey di lislaam ñu di ko gën di gëm di ko gën di topp di ci gën di jariñu xalla wàcce na ummatoo xeetam fii xirsi millati ci wattu yoonam wi wala garde wala sàmm ka laysi ba mel ne ka gaynde xal la boobu wàcc na maal asbaali ànd xalub mooy doomu gaynde fii aji mi ci euh, ci gott yi nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabaarakallaahu wàcc gi nga xam ne euh, garde na ko yoonu lislaamam bi diineem ji ba nga xam ne dafa nekk ci sécurité ba nga xam ne tabaarakallaahu ñi nga xam ne ñoo ci doon sóobu ñoom it dañuy nekk ñoo xam ne day mel na gaynde gu mag gu nekk ci biiri doomam nga xamne bo fa ñewon pour jël ko nam lay attaqué yonent bi sallallahu alayhi wasallam nonu noonu la xéree ci xetam wi kam jadalat bari na bu xulowé wala bu dàggasante kalimaatullaahi batu yàlla min jadalin ci jenn aji dàggasante fi ci qur'an waye wa kam qasama bari na bu xulooweeg alquraanu ay lay min xasama ke aji xuloo kafaa ko doyna la sëkk ak mu'jiza muy kemtan bil ilmi ci xam-xam fi lu ummi ci ummi moy ko xamne jàngut bindut waaye mu wax loo xam ne ñi jàng tey bind mënuñoo wax wax ju mel ne quraan mënuñoo bind it wax ju riis ba mel ne quraan te moom ñoom xam nañ ne yenent bi duggul ci benn daara boo xam dañu jël alliwa teg ci luppam waaye ki ñëw jàngal ko mooy rabbul izzati wal jabarut moo yebal sayduna jabrail alayhi salaam mi sangu malaaka yi mu ñëw waxal yenent bi di ko dee waaw moom la waxoon ne qul innama ana basharun mislukum waaye yuuxa ilayya nag kon boo xam ne dafa màgg fil jaahiliyati wala dafa nekk boog fil jaahiliyati fekk ci jamono yi réer mu ñëw ci seen biir ñu yónni ko ci ñoom wa taadi bi mu màgg fil yutumi ci jirim mooy doonul koo xam ne dund naag baayam ba mën a xam bànneexu dund ak sa way jur nu mel ndax qadaa bi abwaa abdullahi xiina mada shahran lil xamli aada ashurul kalimi cheikh alxaaji malik daf ne way juróom wi góor moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi leeru yenant bi nekkee ci biiru amina ba am ñaari weer ci la baayam faatu bi yenant bi juddu alayhi salaatu wasalaam yaayam rek la fi fekk waaye yaayam ñeenti at wala juróom benn at la def ak yenant bi yenant bi wuyu ju boromam moo tax mu ne waama arbaatin aw sittatin hëlëkat umma nabi bi abwa abwa awi zuhami kon foofu la bunt bu juróom ñetteel bi yam incha allahu ñuy jéggalu doomi soxna yeeg borom xam-xam yi njuumte yeeg yàq yi lépp lu ci dëng ñu xam ne ci mata de ngóor si doon wax la gàtt xam-xam ak ñàkk fa saax lu ci jub ci mbaaxu yàlla la ak yërmandeem yàlla yàlla defal ñu dégg ak topp ngeen baal ñu àq wassalaamu aleykum wa rahmatullah خليل يا عيا وانزلا بتواني